Uh, assalamualaikum alaikum Sëriñ Cissé. aleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi nuyu di yang dañu ñaan jàmm bu baax waa beneen yoon la. am mbégte ak kontante dafa yow benn émission bu ndaw bu gàtt. émission lu mu ndaw la bu mu gàtt gàtt am solo trop. jaam jëriñ ñu jëriñ képp ku community ga lamɛn inshallah kosɛbɛ yala community b'ale ziara ɲaɲa a b'a se o. bisimilah alhamdulilah alhamdulilah ala sebi na ahmadu kati musa aliyat wasalatu wasalam ala sebi na muhammad sallallahu alaihi wasallam daaw dama lay bëgg baax di la ziar di ko ñaan yàlla jàmm di ko ñaan borom fu nit nekk si àdduna bi am yàlla fa ñuy taw feex mbaa jaay musa sallallahu alaihi wasallam bisimilah ñu xaar question yi inshallah. macha allah tey loo ñëwoon Parce que après le bon le meilleur nomi le meilleur sénégalais par exemple sénégalais le meilleur trop ben ciow ben bri trop trop trop trop muy digënté sa ties ak rek ba sen dernier passage sax amona ciow trop trop trop trop nit lu xawal lu ne gaay ki na ma xop li ki na ma xop li ñun tamit loolu xamuñ dara ñi jiital ak ñaan. Mm. wala ñooñu laaj leen ba xam foofu noonu mystique feeñ na fa wala lu mystique daal loolu ñu laaj leen suñu question tey. waaw alhamdulilah Daouda man du may sawar dox ci làmb donc la daal ku la nit dëkkee micro dina la ci laaj euh, seetaan moom face à face dégg naa wax moom ak coow ñoo yàgg ànd ndax sport la boo xam ne ay jeune ay xale kese ñoo ko seq ñoo xam ne toll seen digg doole seen ren day tàng pour lu leen jaxase dafay yomb kanda nak mbiru mystique ci nek lamb mo mystique sax ñu and lamb ak mystique ak ciow ñu and lolu mom ke mul ko gene ci lamb moy lamb ndax sport xalé la té environnement bi lamb di dundé mu ñak lolu kanda nak am ko ci galla japp mystique yoy mom dëgg-dëgg amuñu ci xam-xam te jéemuñ koy gëstu nag ndax dafa am loo xamante daanaka ñun amuluñu sens pour ñu koy gëstu man amuluma amuluma importance boobu pour man pour man moo tax mu ci bëgg di ci wax lu bari euh, loolu daal la dem loolu laa am pour ma ci wax ci diggante Sa Thiès ak waaw même même boobu sax suñu boobu parce que Sa Thiès bu ñëwee hmm. moom dane maa ngi si interview ñoo hmm. di ñëw di baax dafa xëpp saafara waaw waaw di ko xëpp saafara mu ne bii man du ko mooy li ma la wax rek. waaw li ma wax làmb moom mystique ak coow ñu naan kenn mënu ko tàqale te moo leen tàqale loolu mënu si ñàkk si làmb laaj nag di am ci làmb waaw loolu la kese moo ci nekk mais amul leneen. alhamdulilah waaw donc moom leer na question boobu leer nañu. am na beneen question bu dari mm. dari next Senegal mm. yep smal nak smal Senegal evito ko ci di dari hmm. kay woko fofu esprit affaire njang bi dal hmm. dal Dia nañ dal na yeen ñu ko am am solo mustam dal mustam masih di Senegal Wow. Ini bu bu leer fofu non waaw xam nga lañ li ñu xam si politique donc la yàgg ñu fi noonu lu bëri si avant ñun la kaw ci politique waaye ñi ñuy nekkul tamit defe naa mos ñu gis lu mel nii politicien boo xam ne dafay ñëw méngoog ak nitu daara ñun si Ousmane Sonko lañ xam ne bu jàngee alquran nga xam ne taqalewul ko lu ko xam ne dafay dem ñu koy dicté muy bind à français daf ko tarbiya comme ñun ndongo daara ñu ngi ko tarbiya dem te daara dañ jàngi ko kon ñun ndongo yi dañuy gis bopp su ku mel ni président Ousmane Sonko euh, te état bi ñu nekk nii li sëriñ daara daj mosu koo daj ci benn état actuellement may wax ak lu mu gàtt gàtt lu ëpp quinze sëriñ ñu ci biir kaso yi ñëpp Macky Sall moo leen tëj ku mel ni imaam Alioune Ndao yàlla yërëm ko. xam ne lu ne la liggéey ci diina. ci alquran. moo tax dama dama naan état bi àqu àqu imaam Ndao kese bu leen dalee rek du baax si ñoom. jaamu yàlla bu mel noonu set sell bëgg lu baax ñaata nit la formé nga xëy xëy ak kese ko lu ñàkk fu la affaire tourisme yi ñàkk fu la xam ne wër na la amul. téye ko pendant presque trois ans. boo ko téye woon sax comme ni ngay téye yeneen prisonniers yi sax garaaw waaye téye ko di ko di ko ba bi mu si joxee ak bi muy ñàkk bakkanam mun nañu soriwut imam ndaw xam naa bu baax dama ko doon fréquenté kon mu lay fréquenté dama gis naa dinaa gis naa ngeen toog waaw bés jot na sama laaj ko imam li nga wax ne nga dund si kaso gi yëpp est ce que sa wér gi yaram yaa ngi koy sentir comme ni nga ko doon sentir imam actif la imam séntu sportif la ku yàlla mayoon kattan la mënu ma siisee bu ma génne ba tey li may yëg mosuma ko yëg ba mu juddoo ba tey. waaw waaw sama sant am na lu tam problème. daal waxtaan ko jëf ju ñaaw bi àq boobu lañ jàppee du mën a baax moo ko suñu. nekk ci biir kaso yi pour le moment xamul leen fi yëpp jàpp sa taalibe. Mhm. yeew loolu lu dellu si daara. daara ak loolu ñu ànd dafa xale yoo xamante ni. yàlla moo leen bindee ñu dëgër bopp xale yooyu boo bëgg def si ñoom alquran foog nga yeewu leen pour alquran mën a dugg si ñoom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko Jibril di wàcc alquran si moom sax da ko doon da ko doon sonal teg ko ay fitna ay coono wal ko na ko lii ñu lay bëgg dugal si sa si sa dënn nii du caaxaan keneen koo ci bëgg dugal si dënnam tamit foog am foo jaaxal moom bu njëkk doon nañ gis pont Sénégal 92 pont boobu bi. ay xale doon fàqee ci daara yi ñëw ba di gens. dem ba mujjee ba nekk ay agresseur léegi nag xale bi balaa mu yegg ci étape boobu noonu. agressé di rey nit di gens di naan sàngara di sàcc chaque jour ñu yeewu yóbbu police. mu def semaine ñaari semaine dafaa ñu defar mu def weer ñaari weer génnaat balaa mu yegg ci état boobu ngay yeewoo ci bu mu nekkee xale mu gën mu dem ba nekk mag police di ko yeewoo ak yeewoo kon yéexu xale wala jéegu ko pour punir ko ndax mu mën a alxuraan mën a ci boppam loolu déli te xale boo ko def su màggee dana la sant dina la gërëm kon ñun bu ñu toogee gis ay sëriñ daara yu jeex ay imaam tey ay imaam ak ci biir kaso ñoo xam ne ay xutba lañ def jàpp lañ ci loolu yenn sëriñ daara yi yu ñàkk fu la ci lañ ñu ngi nekk ci kaso état bi rek lañ ko mos a dund ba état Sénégal di état ba tey kon ñun sëriñ daara ñun mu ñu bëgg état bi mënuñ ko bëgg ndax daf ñu sonal daf ñu teg ay fitna yoo xam ne daara mosuñ ko dund suñ gisee nag jaamu yàlla man dafa ñëw ñu gis ñu bokk si moom kooku mënuñu lu jàppale ko si ñaan jàppale ko si lépp lu ko mën a jàppale rek nekk si jàppale loolu tax ñu waay daara yëpp lëng koo nekk benn say taxaw ci ginnaaw président man son pour jàppale moom loolu kese la du leneen si biir loolu li ñu dem ba tey. moom Sonko mi ñëpp invité ko mu daara bi. Hmm. dana sell moom fu mu dem rek gaa jox ko ko kaamil alxuraan xam nga nit su fekkente yow àdduna. Hmm. mbiru àdduna fëkkul la. Hmm. kàddu bi gën a rëy si àdduna ci yow mooy alxuraan. moom alal tiitalu ko. mbiru àdduna yi tiitalu ko. ndax su fekkoon ne lu mu yittewoo la comme ni ko ni ñuy yittewoo fa mu nekkoon amoon na mille sens pour nekk multimilliardaire mu ne képp ku a gis ne sàcc na dërëmu ko wax boobu lañ ko ko xam ne la ñor gën a rëy téere mooy alquran kon jullit booy teral teral gën a rëy nga koy teral mooy alquran kër moo tax fu mu dem nit ñi di ko terale alquran ci xam-xam ndax ku bëgg xam-xam la tey nag macha allah yàlla xaasal na ko ci ba alhamdulilah bokk ci producteurs yi man dañuy dem war a dem benn cérémonie diina dem dictale benn bindum Serigne Touba wala binduma Alaaji Maalik wala benn aaya alquran nga bëgg a dem foofu boo demee nag da ngay triser ndax li ngay wax dëgg ci yow. moo tax ngay gis ñu yi. ndax li ñuy wax du si ñoom di naa xel moo nekk seen xol. waaw kon ñun mm-hmm. mm-hmm. ñu jàppale ko. te sénégal dem nañ bàyyi xel benn affaire nit lu tubaab laa la mën a tudde xaw ma ko mën a tudde nit mënoo woon a jullit nga nga juddu ñu dugal la français nga am diplôme yëpp ay defee ma bagaat lu ne nga dem liggéenti ji te yow sangu farata sax mënoo loolu erreur rawu loolu te yow liggéenti nga ba sa mbiru aduna mboolem yi diplôme la ngeen di ko aduna bu gàtt bii nii du dara waaye lépp lu la jël ci àllaaxira mu jéemoo ci dara bari nag ñooy gis fii ay ministre wala dara ñu naan diw borom xam-xam la wala diw intellectuel la bu julli mi ak sax mënu ko def ah sëriñ doo ma yàlla ko jotoo mais mag benn vidéo sax may sànni invité ko Touba mu ni benn téere sëñ Touba bi mu koy di mais téere bi lépp lu suñ ay jumte la sa mbokk toog am di di ko jàng sëriñ na naan sëriñ boobu ne boppam lu ma ko ay jumte la ba loolu waaw waaw lu wax rek war dem cérémonie ñu jël benn mbindum sëriñ bi dicté ko nga bind ko en France comme ni ko xam te France saa bu bindee alxuraan dafa def ay fautes. français mënul bind alxuraan normal. heure boo ko bindee France alxuraan heure boo ko bindee lettre français mhm. dañ ci def faute dañ ci loolu rek moo indi loolu. loolu nag mbiru triche la mbiru naxaat la ko am nax sa bopp. loolu moo ci nekk ñu ne loolu gis ci président Ousmane Sonko. kon taxaw ci ginnaaw nekk ci kanamam nekk ci ndeyjoor nekk ci càmmoñam nekk ci kawam si suuf yëpp ñu féete ko taxawoo ko ba yàlla def jàmm liñ bëgg ci réew mi ñu am ko incha allah. waaw bu ma fa une question yi la parce que gis naa la fan yii. Hmm. njiitu réew mi changé ay magistrat yu bëri bëri. Hmm. loolu la nga xam. waaw loolu moom waxoon naa ci keroog. parce que loolu passé. Hmm. seen tappale yi nekk def rek lañ ko ne ba tey def rek. waaye dara si jàll. dara si jàll. loolu la laa jot dara si jàll. mais nag euh, ba tey émission bi ñu wax. élection yi deux mille vingt quatre la. te ñëw na ba pare. xam nga ñëpp xam ne élection mel ni moom Moussa André ñu fekkoon ñu wala man dañ man man dara man fekk moom ñëpp ci leen tiit boo xam solution bi lan lan moo war a mën a dimbal jaam nguur si Ousmane Sonko moom tamit macha lu bëgg tamit Sénégal moo ko Sénégal moo ko fu mu taxaw si seen yéen ay ay ñàkk ngeen ay seen ngeen macha man de man de li ma gëm tey ba suba Ousmane Sonko da nekk candidat gëm président ndax lu mu jaral état bi pour ñu kale ko bu mu dem gëm naa ne jaral na ko seen Sénégal bi ba ñu bëgg duñ ko def. te nag peuple bi ñu ëpp doole état ñu ëpp doole justice ñu ëpp doole police ñu ëpp doole mbooleem man loolu laa gëm kon gëm naa ne Ousmane Sonko dafay nekk incha allah candidat. dafay nekk président Sénégal man bi bëgg laaj say mbir bopp yi tamit. Hmm. nga nekk ñëpp xam masala yàlla baaxatal nga baax trop masala am li nga yëg wàllu ñaan wàllu seet lépp loo mos a seet loo mos a ñaan te gis nañ ko taxal suñu bëri daf ne am na mu jafe-jafe boo xam ne fi mu ne nii même bu dul élection ka sax ak yeneen yeneen mën na xew benn banditisme ak agression bu nekk na Sénégal yi sécurité moom amatu fa dara dara dara dara Hmm. Hmm. Hmm. la si gën di am rek Ousmane Sonko génn wuy police wuy justice soo génne armée bi ñu ñëpp tiit na macha allah saafara bi lan la quoi saafara bi lan la yéen seen kër yi dama saafara kër yi suñu sëriñ bi macha allah waaw man moom li may wax si jamono bu ñàkk sécurité bi dama naan su Sénégal rek àdduna yëpp la àdduna moo toll foofu nit ñi ni bëree ñi ci nitee bëriwul maanaam doomu aadama yi nañ waaye ñi ci nite bëriwul da nga bu ndaw ngeen am wax bu ndaw rek mu mun a sal na dama lay rey lim la wax boo taxawee mu dëggal bopp ray ray la fa xëcc lu ñàkk ful ah rayante ba si sa biir kër sax su nga dégg diw xaritam dem ko faat ñaari xar doon xeex ray na ko frère yi bokk ndey bàyyi kenn ki ray na morom da nga dégg sax ba sax ku rey ku rey waaye juróom te gis nañ kon nit ñi nite moo génn si ñoom muy xew nag adduna bi yëpp partout daal moom foo dem ñàkk sécurité boobu dafa nekk kon dañuy gis ne kon ci mujj jamono laay jàpp ne mujj jamono lay nekk kon ku nekk dama wuti loolu mhm. que jamono boobu lañ toll ñun am mhm. mhm. ko xam nañ li leen jox lan la. Ah, na ci muy ñaari mbir yi ñaari gàllaay. macha allah lii li ma waxoon bu baax baax baax. ak ak la. ku ko mm-hmm. fetal doo ci dee. faata doo ci dee. jaasi doo ci dee. allah yeneen mbir yu ci mais li ci gën a dafa amaale maam kaane maam kaane soo ko déggee. Mm-hmm. mooy nga fi dajeeg dix xale yor ñu paata yor ñu jaasi. waaw bu doole pour agresser la. xacc pour la arrêt ku bi sa kaw daam. léegi nag léegi bii tamit ba léegi mun naa ne tàkkati la moom. mooy la tàkkati la moom tamit. Ah. tàkkati boo ko déggee mooy fetal ak paagal ah. mais même accident oto boo ci nekkee. Mm-hmm. surtout jamono accident yi bëri nañ bu fekk yaa ngi ànd ak moom. Mm-hmm. accident lu métti métti mën nga cee ñun ñaari lañ am lu ñuy defar si kaaraange fu ne mu fay dem ci àdduna waaye fu ko nit soxla nekk ci àdduna bay mën na la ko fekk incha allah bés bu si côté kaaraange mhm. nga boo gisee koo wóoru demal si jamono boobu lañ toog sa kër sax bëgg la néewal doole des àla la nekk jéem a sa bopp mhm. ci loolu lañ toll fu nekk ni ndax nit mënoo dafa am euh, mbir yoo xam ne bu ñëwee mënoo mënoo daw amatul da ngay taxaw joxe sa bakkan ak forom dak rek ñu jeex leen booy day day buy sey kon nga liyee woon kon nag lii kon ku nekk da nga war di di di ànd ak moom toujours masala sëñ masala ñu loolu laaj masala mu solo trop trop trop trop hmm. wax nga si law yi nga si Ousmane Sonko nga tey Macky Sall ëpp yi ëpp yi soxla ëpp yi tëj ñun mooy wàllu ñaan wàllu ngalaay yéen gi moom Macky Sall ba yàqu na carrément yàqu na carré carré carré carrément ba si yeneen réew da nga dégg yeneen diw yeneen fii diw affaire yu ñàkk fa yoon benn sa nga fekk ba sa bitig fekk jam ko paaka gën dem soon ba démb maa ngi toog maa ngi man maa ngi toog démb benn maire mu taw wala la si mu naan dem war na ko ngalaaj yi kon macha allah kon. naa mm. mën a ku nekk war si mën a wut. mais bu dul dara mm. mm. am na solo muy def fu muy jaar ba am ko waat. loolu foo na lu ñu la fay. waaw ñu mu am. baa mu mu baa ci baax baax. de sant di la gërëm bu baax a baax a baax am nañ kontaan di nekk si yow parce que saa la wooy émission da ngay sawar kontaan wuus ñi tamit am na fay daal yaa tamit am fay daal maa ngi fàttali tamit am na ku ma doon laaj mu ne mbiru sarax sarax sarax lan lay def si ñaan sarax yow nga xam naa xam nga si allah wala xam bàyyi sama man leer man man leer xam nga ñaan des fois nit mbiram bloc am ay blocage yoo xamante ni mun naa mu defal mu débloqué des fois na ay blocage yoo xamante ni cat la mm-hmm. te cat nag moo gën a bon sax liggéey ci te Sénégal yi léegi dañoo ñemee bët lépp looy def yaa ngi TikTok booy lekk yaa ngi wane booy ngi wane booy liggéey yaa ngi dox si mbedd yaa ngi wane fi nekk xaalis yaa ngi wanewu ku nekk su ay ay tur man noobu laa man maa ngi man maa ngi lele loo ci gis yàqu rek yàqu kese sëriñ yàqu la rek ba fan yi baax rek gis nañ benn booy boo xam ne def naa tiktok la ñu ne la tiktok la nekk ñu doon ko woowee noobul ñu gis ne Baye Fall dañoo lakk oto oto bu bëggoon sa jël bakkanam bakkanam bu doon police yooyu yëpp ñàkk ñaan moo ko indi ak pour ko réew ak wane te loolu moo gën a bon liggéey ci yaram nit dina am nag ay amaana nit la ko def loolu dafay am nit ñi moom dañoo lu nekk lu nekk kon ñaan ak sarax ñoo ànd nit mbiram dina dëgër pour mu mbiram dox foog nga xam sa ba mu def ko nga dog ko ñaar ñaar mi nag moom souvent nga ne ko naa man sàmm naa waaye gisuma dara dem naa fu ne mm-hmm. sa ñi ngay dajal ñoo xamul wala ñoo mënul mm-hmm. waaye ñoo xam ne seen mbir moo jafe waaye nag nit lu mbiram jafe-jafe mm-hmm. bu mu découragé bu mu naa ko def ndax nit ki sa yitte li nga bëgg rek si lañ lay nax nit loo bëggul kenn loo ci nax loo bëggul doo ci def sa xaalis comme yaa bëgg bul découragé bul découragé mm-hmm. kon ci côté boobu lépp lu si nit soxla muy mbiru listixaar moo xam lu mun si doon dañ ci jëfandikoo suñu kéem lay kattan muy ku bëgg liggéenti dara dafaa gis ku liggéenti mbir mu dëgër boo ay at yi at mu bi dëgër dal la man affaire bi dëgër dal waaw yow yaa ngi mu soo kër sa fekk suba wala <laughs> waaw fekk sax na ko téye wala leneen. mais am na loo xamante ni bu ko nit sangoo dina ànd ak téeméeri doomi góor lay ànd ak. kese nga sang ko amul looy lijjanti moo weex. Uh-huh. nga sangoo ko. moo xam lépp mu tël ay at mu tël. ah loolu sangoo ci kàddu yàlla loolu loolu la ci jot. moo xam ku doon lijjanti këyit tukki la. moo xam lu ah, waaye nag tukki kaay na daanaka benn affaire. waaw des fois nit ñëw dama bëgg tukki te këyit suukar sax amu loolu gis nga mooy wat waaw gis nga nit ñaan dañ ko dimbal ñaan bu lay dox cinquante nga indi cinquante nga am cent pour cent cent pour cent bu dee da nga bëgg ko ñaan ci tukki fépp foo bëgg a dem dëkk prendre ko dem uti ñaan loolu sëriñ bi nga xam ne loolu loolu moom sax nañ li tax nag ñaan am solo da nga gis ku am mbooleem kay dajale lépp <laughs> da kon lu ne nga ñëw teg uh-huh. gaa yi ñaan ci ak salaat dafay joué bi loolu kon daal loolu lañ am lu ñuy leeral ah, parce que émission bi gudd gudd boobu mm-hmm. di ñaanal Sénégal yëpp jàmm ak mboolem fu ñu nekk si àdduna bi yàlla yàlla defal leen jàmm gis nañ dem fële ci Tunis tam Sénégal yi si ndox mu set yenn lenn la ci xeetu mbugal yi yàlla di mbugal jaamam tukki ak di mbugal la loolu yëpp duma ko trop ki dafa métti waaye nag rek ak ñaan ak ñaanlu ak wut ay musluwaay yal na yàlla dimbale mboolem Sénégal nekk ci yal na yàlla xettali la li la taxoon a jóg mhm. xam ne ni moo la tax a génn yàlla yomb la nga des waat sa njaboot bi jaay bi Mustafa sallallahu alayhi wa barke mboolem yàlla gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh macha allah sëriñ bi kontaan trop trop trop trop mm. trop si yow macha allah chaque fois nga woowee rek mm. di nga disponible loolu yombul ci jamono tey nii ku oyof macha allah bu oyof seen amoon ñoo xam ne ñu fi nga toll fi nga toll tey fi nga jëlee téléphone sax di yomb mais man saa ma la woowee mm. ak loolu jàpp-jàpp wala dara même boo jàppee kurus damay bind da jàpp kurus loolu nag du sa dara sa mbaax yow yow nga ñaan yàlla gudd fan ak wér lépp li nga bëgg si kaw suuf alhamdulilah dafa si barke yow jàpp salaam barke sëriñ Mawla Cheikh Ibrahima Niass ñu lay ñaan jàmm lépp loo jublu yàlla ubbeeku barke baay ak baay baay bu baax masha Allah bu am diine am xam-xam moo damay toog di ko wax chaque jour parce que war nga mu gis sama jaxal parce que moom mu gis la ma wax du gis mu ma loon moom ma gis carrément moom ay jafe-jafe yu bare bare bari mooy war ma gis loolu nag moom dama wax ko dafa jot ñu xam yaay kan yàlla yàlla yooyu xam-xam yàlla may sutura za si baat na